de justice de la CEDEAO dafa rendre benn arrêt boo xamante ni daf ñu intéressé parce que arrêt bi mi ngi euh, aju ci wàllu parrainage dafa am benn parti politique Sénégal parti bi dafa attaqué euh, loi bi sur le parrainage dem ci CEDEAO ne ko Sénégal waaw donc mu dem ci cour de justice de CEDEAO ne Sénégal dañoo jël benn parrainage ci élection présidentielle ba ñu jëm parce que boobu élection présidentielle organisé guñu ko woon mu ne ko élection présidentielle boobu ñu jëm dañ fi organiser parrainage parrainage bi nag mooy candidat bu nekk soo bu nekk candidat ci élection présidentielle bi il faut nga am au moins 0,8 pour cent des électeurs léegi ñun loolu moo tax mënuñoo nekk candidat ñu bëgg nag ngeen dàq loi boobu sur le parrainage annulé ko biñ ko defee cour de justice jël benn dogal maître merci dogal bi mu wax ci ñetti mbir bi jiitu dafa ne loi boobu ñu xam ne dañ koo jël Sénégal sur le parrainage loi bi ñu ne moom violé wul législation sur les partis bi am parti politique Sénégal loi bi parrainage violé wu ko loolu cour bi moo ko wax benn ñaar mu ne loi boobu tamit du loi boo xamante ni dañ koy woy discriminatoire mooy indiwul xëjëg seen ci ñi nga xamante ni dañoo bëgg a nekk candidat loi bi discriminatoire waaye loi bi nag suñ ko xoolee ni nga xamante ni moom lañ ko doxale gis nañu ne dina tax ba nga xamante ni ñu bari duñu mun a nekk candidat cour bi nu muy xalaate loolu nu mu koy démontrer nu xaw doy waar la sax dafa ne soo jëlee réew mu mel ni Sénégal am na plus de trois cent partis politiques soo nee nag na ku nekk am minimum zéro virgule huit pour cent de l' de de l' électorat pour nga mun a nekk candidat mu ne loolu parti politique yëpp du ñu mun a am candidat te loolu su amee dafa am partie yoo xam dañ leen di exclure ñu ne loolu nag dafa xaw doy waar doy na waar waaye Sénégal du réew moo xamante ni dafay. critiquer décision CEDEAO yi wala du reconnaître décision CEDEAO yi wala day quitter cour de justice CEDEAO comme ni ñu gis léegi ay état yu bari di ko def déedéet Sénégal état de droit la Sénégal dafa respecter cour de la CEDEAO Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xamante ni ñoo sanc CEDEAO sanc cour de justice la CEDEAO loolu moo tax ñu ne arrêt bi dogal boobu dañ cee gis yoo xamante ni dafa doy waar ci wàllu yoon ci wàllu droit cour bi bi muy statuer comme ni ma ko waxee élection bi ñëwagul woon donc mënuñu woon wax ne sax violé nañu ay droit waaye cour bi dafa ne mën naa am ñu violé ay droit ñu ni cour bi déet ndax yow ci sa jurisprudence bu njëkk ba la nga doon wax mooy droit pour nga statuer ci violation de droits lome day nekk droit boo xam ne dañ koo violé te violation violation bi ñëpp gis ko mu leer ne fàng waaye fii nga ne mën nañoo violé loolu dafa njëkk a problème mu bokk ci li nga xamante ne dañ koy souligner beneen bi mooy soo leen jëlee li ñuy wax CEDEAO organisation communautaire la <clears throat> organisation communautaire mooy état yi dañoo sanc benn kuréel bu ñuy wax CEDEAO dénk ko ay compétences dénk ko ay compétences en matière d'harmonisation économique en matière d'harmonisation des affaires en matière de coordination des politiques économiques et cetera waaye nag dénk ko li nga xamante ni noonu lay organiser sartu réew déedéet dénk ko ko de loolu mooy état bu nekk dafa am li ñuy wax autonomie politique et constitutionnelle nooy defee sa constitution nooy defe sa sartu réew loolu moom dafa nekk loo xamante ni guur bi di ci dugg waaye fii dañoo seetlu ne cour bi da cee dugg ndaxte loi sur le parrainage ci constitution Sénégal la article bi la ñu modifié bindaat ko pare modifié code électoral bi donc loolu dafa nekk loo xamante ni dafa doy waar leneen li doy waar dañu gis ne tamit cour de la CEDEAO daf ko def ci arrêt bi te doon woon taamu di ko def ci jurisprudence bi nga xamante ni xam nañ ko moo tax fii lépp luñ koy reproché dañ ko naan ci sa jurisprudence waxuñu li ñu xalaat day ñun yow ci sa jurisprudence ñu ni ko yow Sénégal moom dafa am juridiction constitutionnelle bu ñuy wax conseil constitutionnel moom la sartu réew mi may mu statuer ci loi constitutionnelle ak loi yi cour la CEDEAO su ñëwee nag ne loi boobu baaxul wala loi boobu dañ ko war a dàq ñu ni ko boobu nag yaa ngi nag euh, jël wàllu conseil constitutionnel wala conseil constitutionnel suñ ko saisiré parce que loi bi ñu ko wotee am na ay député yu saisiroon conseil constitutionnel conseil constitutionnel ba def li ñuy wax décision revêtue de l'autorité de la chose jugée cour de la CEDEAO ñëw bëgg a dàq loolu su boobaa nag cour de la CEDEAO day def loo xamante nag loolu tamit protocole am may ko ko jurisprudence am may ko ko benn cour sénégalaise décidé mu ñëw ne cour bi li mu def baaxul dama koy dàq bi ci topp mooy cour de la CEDEAO raisonnement bi nga xam ne daf ko def loolu du raisonnement droit naan plus de 300 partis politiques moo am waaye nag suñu laajee ku nekk 0,8 pour cent ñëpp duñu mun am candidat su boobaa dafay mel nag comprendre ñu lu ñu bëgg ndaxte li ñu bëggoon def lan la mais dañoo bëggoon def filtrage mën nga am parti politique te doo nekk candidat mën nga parti politique te doo présenter candidat mën nga am parti politique bokk ak yeneen parti coalition pour ngeen nekk candidat Benno Bokk Yaakaar lu lu ëpp ñi ñaar fukki parti ñoo ci bokk donc soo nee su ñu defee loolu partie yëpp du ñu mën a am candidat loolu dangay dugg ci raisonnement subjectivité comme ni ko maître say doon waxee wala nga dugg ci raisonnement opportunité te loolu lu liggéeyu juridiction juridiction sooy àtte da ngay àtte ci sart da ngay àtte ci yoon li <coughs> ci des mooy cour de justice de la dafa ne Sénégal jox naa la 6 mois. juróom juróom juróom benn weer juróom benn weer yooyu war nga ci euh, dàq sa loi sur le parrainage te tamit nga yëkkati lépp loo xamante ni dañu considérer que ay restriction la pour participation électorale ma ne yoon kañ ñi jàng droit yëpp xam nañ ne juge moom bu mu mënti nekk nag juge national juge communautaire juge international mën naa mën naa atte waaye su attee ba pare danaan sama sama sama sama wàll man jeex na suñ ko nee waaw mais juge li nga àtte waa jële defu ko de wala état bi mun la loolu man sama yoon nekku ci man sama rôle juge mooy àtte waaye juge du ma adressé injonction fii nag suñu xoolee mbir yi dafa mel ni cour de la CEDEAO moom daf ñuy adressé ay injonction nee na juróom benn weer laa leen may pour ngeen def li ma ne loolu tamit du wàllam protocole bi permettre ko jurisprudence am permettre ko te loolu tamit tegginewul loolu moo tax ñu ne arrêt cour la CEDEAO bi posé nañu problème waaye nag posé wul problème Sénégal rek su ñu xoolee euh, juróomi at yii ñu nga xamante ni dañ ko weesu li ñu gis mooy état yu bëri su cour de la CEDEAO rendre décision duñ ko appliqué am na sax état yoo xam ne ñoom dañoo commencé génn ci cour la CEDEAO cour de la CEDEAO bi mu amee ba léegi 2005 ba léegi bi muy statué mi ngi rendre à peu près bi ñu ko joxee compétence droit de l'homme parce que 91 la am waaye compétence droit de bi la mi rendre à peu près 200 arrêts 200 arrêts yi suñu xoolee niveau d' exécution bi mooy ndax état yi ñu koy respecté àgguñu sax 50 pour cent ci nañ ko respecté loolu nag li ko indi lan la du état yi dañoo bañ de déedéet waaye yenn saa yi nag nañ ko wax cour de la CEDEAO décision yi muy rendre dafay poser problème moo tax Sénégal ñu ni décision yi posé na problème waaye nag li mu posé problème yëpp Sénégal dafa nekk réew boo xam ne état de droit la Sénégal dafa nekk réew boo xam ne moom du ne yaa koo wax waaye man du ma ko appliqué Sénégal du fonctionner noonu. fii état de droit la et parce que état de droit la dañ naan ñun kët dogal boobu nga xam ne cour de la CEDEAO jël na ko ñun Sénégal dañ ko jël xool nag nan lañ ko mën a exécuter ni ko mën a exécuter nag mooy dañ naan cour de la dégg nañu li nga wax waaye comme li nga wax leerul parce que am na ñu naan principe bu parrainage bi nga remettre en cause loolu moom mënoo ko ndax ci constitution bi la nekk sartu réew mi am na ñu ni déedéet remettre en cause bu parrainage bi waaye li nga remettre en cause mooy niñ ko doxalee. su dee lool la kañ amul problème lu tax amul problème ndax fii ci jalaw national bi waxtaan bi tey point ci ci ci point ci ëpp solo ci parrainage bi ci la bokk président Macky Sall dafa ne parrainage bi def nañ ko élection présidentielle 2019 waaye nag du loo xam ne dafa parfait nañ ci waxtaan suñ ko waxtaanee xool li ci baax ñu garder ko consolider ko li ci baaxul ñu améliorer ko donc su dee pour remettre en cause principe bu parrainage bi ànduñu ci waaye su dee nag dañ ne parrainage bi d'accord nañ ci ndax démocratie yépp moo am parrainage su démocratie amul parrainage 150 candidats ngay am te cent cinquante candidats soo ko organiser élection présidentielle élection bi bloqué si réew tas te si réew mi su tasee du cour de la CEDEAO mooy ñëw di la wàllu soo amee problème boobu yaay jël sa décision souveraine loolu sa sartu réew moo la ko may nga organiser say élection ba élection yi jaar yoon citoyens yi mën a wote loolu nag la ñu def moo tax ñu ne mun nañu def li ñuy wax recours en interprétation recours en interprétation mooy su cour bi rendre benn décision boo xam ne leerul nga ne ko leeralal li nga bëgg a wax fii su ko leeralee ne déedéet man de seen restriction yi rek laa bëgg ngeen élever ngeen relever ko dee sax gis nañu ne yéen ngi waxtaan ci parrainage bi donc lool rek la moo ñu intéressé d'ailleurs gis nañu sànq lii euh, euh, honorable Cheikh Sarr doon lire gis nañu benn point boo xamante ne ci audit du bi ñu ngi proposer Sénégal pour ñu améliorer parrainage bi am na sax ñu léegi dañu war def parrainage citoyen parrainage populaire waaye itam mun nañu def parrainage des élus comme ça ñu am ñaar wala ñetti façon yoo xamante ni mun nañ ko parrainer donc li ñu remettre en cause du parrainage du principe parrainage bi ni ñu koy doxalee la su dee ni koy doxalee rek amuñ ci problème parce que encore une fois président de la république moom il est ouvert wax na ne parenage bi nañ ko saytu xoolaat ko étudier ko li ci baax ñu garder ko li nga xamante ni daf ci nekkoon nag su noonu nekkoon insuffisance ñu corriger ko am. benn parrainage boo xamante ni dina consensuel ñëpp nañ ci d'accord ñu mun a dem élection présidentielle yoo xam ne dinañ ko def dans l'ordre